yéefar yi ngay daw loolu daa bokk ci bàkkaar yu mag yi su fekkee ne yéefar ya dañoo yem ak jullit ñi ba dañ leen ñaar ci képp yem ci waaye ëpp ñu leen ñaar ca waaw su boobaa kon benn jullit sañ ta daw ku daw da nga am bàkkaar bu mag a mag saa yu sax aj ñetteelu seen ifsaadu maalil muslimi mooy yàq alali ab jullit yàq alali jàmbur mooy ñetteelu yent yi nga xam ne bu ko jëm ñu defee ñu xam def na ko rek waaye ajuwul ci benn cër bàyyi moroom ma raaju aj ñeenteel seen tarku salaati mooy bàyyi julli faalam na nga xam maanaam bàyyi julli ba julli ga raw la ci sa coobare waxtu wa jàll ko bokk na ci bàkkaar yu mag yi bu ko jëm ñu defee ñu xam def na ko rek waaye duñ ko moomali benn cër bàyyi moroom ma kon ñaar fukki bàkkaar yu mag yaa ngoog watruk bàyyil sabilal arbiya yoon way réer ña al mu'tadina ña di way jalgati wasluk te nga soobu sabilal azkiya yoon way ñaw ña al muhtadina ña di way jub leen del jéem foo toll aw ci yoonu ñu yeewu ña baax di juba ko jubal tey moytu yoonu ñu réer ña nga xam ne dañoo dëng tey dëngale ko ànd ñoom ñu dëngal la hal anta ndax yow tax si da ngay mooy man yàlla mi nga xam ne xabaa mayana bil baahi ci aji dagan xataa taxooda ba ngay xuus abu xoral xabaahi géej bon bon ya wa jaxla te mu def albaahi aji dagan ja xaayidan muy aji wamate ilaa jinaani yi jëm ci ajanaam ya allati ya nga xam ne xawat làq nañu ku la ilan gépp xéewal nee na yàlla lim daganal mënees na cee jàpp doy na sëkk nan nga cee doylu bañ a jàll ci lam araamal kon nag na nga moytoo weesu la dagan bay xuus géej yi bon bon yi ndax yàlla bari na lum daganal ndax lépp lu tey rek daganal na ko lu bon rek la araamal te la mu daganal boo ko jëfandikoo rek ci waajib ak mën doog loolaa lay wommat ba yóbbu la àjjana àjjana ja nga xam ne xéewal guñ bëgg rek ma nga fa laa tastaan bul dimbandikoo bi ne amillaahi ci xéewal yàlla yi xalaa xisiyaani yi ci moyam nga ba li fi nekk ruum na nga sàkkoo bi xaa ci xéewal ya xayra xulan ngën ci ay kawe xéewal yi yàlla xéewal foo toll na nga ciy dimbandiku ci taxaw ci lam bëgg mooy taxaw ci waajib ak mën doog lam la digal tamuy waru gar ak lam la digal te sopp ko nga xam ne waru ko ci waaye bëgg na ko yooyu yaa daal fexeel ba xéewal gu am rek jëmale ko ci loolu bul jëmale xéewal mukk ci xaraam lu araam mbaa makruh lu ñu sib mbaa lu amul njëriñ innal mubaaxaati naka yañ daganal idaa lam tuf bi ndem àggale wuñu ilal jinaani jëm ci àjjana ya fa tuf bi kon nañu àggale dinaarin jëm ci sawara neen yi nga xam ne moom la la yàlla daganalal boo ko jëfandikoo ci waajib ak mën doog maanaam lu yàlla bëgg kon mu yóbbu la àjjana waaye li nga am tamit lu dagan boo ko yàqee ci xaraam ak makruh mu yóbbu la sawara te itam bu la yàlla joxeel dagan na nga ci am foo sàkkal sa bakkan ndax sa bakkan dafa amul yemukaay loo ko jox rek mu sàkk lu ko ëpp te nag lu dagan yaatoo yaatu ba li nga bëgg lépp man ca am dafa jafe te bakkan bi tàmmee dund gu yaatoo yaatu lu dagan la mu am bu ko doyut faaw mu jàll ci lu ñu sib bu jàll ci lu ñu sib boo tën a jàll ci lu araam wala moo bakkan bi nga sàkk ko yemukaay boo xam fa nga ko yemale di ko fa di di ko fa yeewu man ba tey baax na ci albaabu lii mooy buntu bi attaani bi aji ñaareel fii tatxiiril xalbi ci laabal xol ba wa jumlatil jawaarihi lem cër ya buntu ñaareel bi moom day wax nag ni ñu war a laabale xol ak laabal mboolem cër yi maanaam ci lépp lu yàlla bëggut alxalbu xol ba kal malik yi mi ngi mel nekk buur ba fil arda yi ci cër ya mahma yamin saa yu jengee rek tamit ñu jeng ñoom cër yi maxaqtidaa in ànd ak sàkku lam sàkku nee na xol bi daa mel ne mooy buurub cër yi ci des nga xam ne fu mu jeng jëm fa rek cër yi ci des wëlbati ko ànd ak moom jëm foofa kon nag xol bi mat nay sàmm bu baax a baax wa in turid ndeem na nga namm islaaha aw saalin yéwénal ay cër mooy defar ay cër maxan boole seen li wàcc ci man ngir li wàcc ci man ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne xama a not na liee ñeel ma idaahu noonam ya fa aslih kon na nga defar alxalba xol ba bilaa tëdd nii seen julul ak tilimal xataa turaa ba dee fi la gis zaata anii sin ngay boroomu wettalikoo billaahi ci yàlla ne ne boo bëggee defar say cër te yàlla tax yàlla mi nga xam ne mooma daaneelal saay noonu te soo bëggee defal say cër daal moom fayal rek ba defal xol bi xol daal moom bu defaroo rek cër yi defaroo kon daal boo bëggee say cër defaru moom fexeel ba defar xol ba rek bu xol bi setee wecc daal ba bëggul lu may yàlla wet li kootut lu may yàlla daal cër yi ci boppam daal defaru amul werante fokk lu mën képp koo xam ne da aajis na si wallahi lu dul yàlla al ahadi may kenn fii ay chaine ci mu ci mbir foofu kon moom murtadun aji murtad la jaxaare ko weddi na ne ab jaam balaa mat ab jaam dëgg-dëgg àgg ci mbir mu ne yàlla rek rek la cay gis nit ñu baax ñi dëgg-dëgg sax gis ci dara leneen lu bokkut ak yàlla dañ koy jàppe ak murtad mel ne ku génn ci lislaam loolu nag ku àgg ci jooja daraja la ñuy wax loola waaye nitu kese moom lu baree bari mu gis ci mbir lu bokkut ak yàlla te it du tax nag ñu jàppee ko ak murtat ba dara dañuy jàpp ne rek àggagu fa mu war a àgg dëgg dëgg sëñ bi ci boppam nag moom daa wax ne mësta gis ci menn mbir lu may yàlla te du gis ci menn mbir lu may yàlla mooy la waxan ne huwa allazi lam ara ghayrahu wala araahu fi shay'in hada wa nawwala la gën a yéeme mooy la wax ne ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qattu siwaahu wa siwaahu lan yara damay sant yàlla cantut jëm ju ko sopp joo xam ne mësta gis ci menn mbir lu may moom yàlla te du gis mukk mukk ci menn mbir lu may moom yàlla fa kullu man képp koo xam ne ra'aahu gis na ko moom yàlla fii kulli layaadin ci lépp dara jaada kon mu tabe laxoo ñeel ko min hu ca mbir moomee bi afdali ayaadin ci ngën ji ay xéewal nee na soo demee dem ba mbir mu ne yàlla yi kese kese nga cay gis xamal ne kon mbir mu ne ak mu mën di doon xéewal ak jàmm rek la la ci yàlla yi defal lépp loo gis yàlla yi kese moom lu baax rek nga cay jële faslu li ab dog la fil qalbi ca xol ba tahir laabalal fu aadaka sa xol minar radaili ci ay caay-caay waxal lii te nga takkaayale ko bi afdalil fadaili ci ngën ji ngëneel ya nee na sa xol da ngay jéem a xam xeeti caay-caay yi nga xam ne mën naa nekk ci xol gannaaw ba nga ko xamee ne nga fexe ba setal ci sa xol bañ am ci sa xol boo xamee itam ngëneel yi nga xam ne bëgg nañ xol takkaayoo ko nga fexe ba mu nekk ci sa xol mu wax la nag caay-caay wajju tanit na nga moytu na nga teet alxasad ak kañaan wal riyaa ak ngisal wal kibra ak rëy wal xiqda ak coxar wala ak mbañeel taxus ko nga làq diyaan leer ne bokk na ci caay-caayi xol nag moom añaane kenn xéewal gu ko yàlla defal kenn am xéewal te yéene woo ko daal di mébét mu ñàkk xéewal ga loolu mooy kañaan bu fekkee da nga jaa boole waxee ko mbaa jëfe ko moom muy araam bu wóor a wóor a wóor bu fekkee nag yéene woo ko ci sa xol waaye ñàkk a yéene sax neexu la boo sañoon dindi ko mu set wecc waaye yàlla la ko nattoo ci nga ñàkk yéene ko xéwal loolu kenn la ko topp kenn la ko topp ndax loo mënta dindi la waaye nag saa yoo ko waxee mbaa nga jëfe ko rek ñu topp la loola. ngistal moom mooy jëf joo xam ne jëfi ak topp la jëfi àllaaxira la nga def ko te yàlla yi kese kese taxut. balaa jëf fa sell rek yàlla kese kese tax bu ci leen taxee lu bokk te yàlla rek mu daal di ñàkk sell la loolu kon na koy moytu ci xolam rëy nag mooy jàpp ne li yàlla sàkk am na ci kenn ku mu ëpp daraja su jàppee ne am na daraja te ci yàlla sàkk am na ci ku mu ëpp daraja rek loolu rëy ngi ci moom li fay mi ngi jàpp ne li yàlla sàkk am na ci lu mu ëpp daraja rek loolu laal na ci rëy waaw kon rëy moom mooy jàpp ne am nga daraja keneen am na daraja waaye yaa ko féete kaw daraja. loolu nag mën naa andi nag xeeb kenn mbaa koo ko wax dëgg te doo ko nangu ay demee noonu fekk réy goo ko waral xiqudu nag mooy jekki-jekki bañ keñ te yàlla taxut li ci gën daal mooy képp ku mu bëgg rek yàlla tax ku mu bañ yàlla tax waaye bu jekkee-jekki soxore kenn mbaa bañ kenn te yàlla kese taxul rek su boobaa loolu xiqudu la yooyu na koy moytu ci xolam ama riyaaw daal ngistal fa huwa moom shirkun ak bokkaale la asxaru gu gën a ndawe saaxibuhoo boroomam nag musaxarun ku ñu tuutal lay doon fi abadin ci faaw ngistal moom nee na baaxut tayit bokkaale gu ndaw la du bokkaale gu mag waaye bokkaale gu ndaw la ñàkk wéetal yàlla gu ndaw la te nee na faaw kuy ngistal moom mbiram day ñàkk solo rek faaw rek kuy ngistal moom mbiram du am solo laayen faxu du jëriñ alxilmu xam-xam wala xamalu caageenu jëf maxariya ànd ak ngistal fa man xawaaxu koo xam ne làq na ko rek fa jamaxa boole na addurra jëpp lor nee na xam-xam lu mu bari bari ak jëf lu mu bari bari waaye selut ngir yàlla kese maanaam ngistal laal na ci rek kon du amati njëriñ ndax yàlla lu sel rek lay nangu lu selul du ko nangu kon ku amee ngistal googu rek amee na jëpp lor mooy lépp lu bon rek dal na ko laa taq su dan na bul jublu xayra rabbi tawli kudul borom xéewal ga la kudul borom fii kulli sa'yin ci jëpp jëf maxa kulli xawlin ànd ak jëpp wax neen del góorgóorlu ci jëpp jëf jooy jëf ak jëpp wax jooy wax rek yàlla kese kese tax loolu mooy sellal de ko jéem nag tame lu jafe-jafe mooy laakin na sa waaye lii tariquhoo yoonam wa mu tawal luñu guddal la tayit saalikuhu aji sooboo mu xawilun aji sukkandiku lay doon xal xal yi ci aji kawe ji neen loolu nag moom desul jekki-jekki man ko da nga koy jéem di ko jéem di ko jéem ba kere yàlla la may nga man ko mooy fexe ba mbir mu ne yàlla kese rek nga cay namm yàlla kese nga cay yéene yoon wu gudd la woo xam ne da nga koy sóobu bañ a dàcc bañ a deltu gannaaw te yaakaar yàlla dimbali la ca nde laa yaqdiru du attan al miksaalu ab tàyyee laa kon wal mu baxariju ak aji caaxaan xale yi ci moom xaw du mukk laa taraaka yàlla bu la gaar xarajun bakkaar nee na ku tàyyeel moom mbaa ku topp bakkanam mbaa ku bari caaxaan kooku moom nee na lu mel ni dana ko jafe lool lool àgg ci daal jëf ju ne wax ju ne yàlla kese kese la ci nam du ci nam leneen waaw loolu nee na farlu bu baax a baax te góorgóorlu tey ñaana ko liwaayu yàlla waaw moo koy taxaman dëgg-dëgg te daal topp cër yi nag cër bu nekk rek mu wax la nga ci war a moytu ak la nga ci war a dimbandikoo ci topp yàlla faslun li ab dog la fil yadayni ci yaari loxo ya fajitani ba na nga teet bil yadayni ci yaari loxo ya yaa muriidu yow taalibe bi tanaawulan yootu takkoonu kook da nga nekkee bii ci moom mu bindi ban di aji bàkkaaru nee na taalibe bi say loxo da nga ko moytoo tàllal jëme ci loo xam ne da lay jox bàkkaar maanaam lépp luy indi bàkkaar rek na nga ci moytoo jëme say loxo booy tàll sa loxo daal na jëm ci topp ak luy indi tuyaaba falaa taxutta bul bind aw ta massa wala ngay laal maaloo xam ne yekkoon dana nekk mu xaraman di luñu araamal fii charxi haadina ci yoonu sunu aj jubal ji almakiini mi aji yëkkati ko daraja na nga moytoo bind ci sa loxo mbaa ngay laal ci sa loxo loo xam ne ku ko seet ci yoon rek mu nekk lu araam nekk bakkaar loolu daal dee ko moytu fa toll wastain na nga dimbandikoo bi ximaa ci ñoom ñaar xala taaxaati ci xeeti topp yàlla yi fii jumlatil awqaati ci mboolem waxtu yi wa saaxaati ak waxtu yi ba tey fa toll daal say loxo na nga koy dimbandikoo ci lépp luy indi ngërëm ak tuyaaba rek faslu li ab dog la fir rëcc lay ni ci ñaari tànk ña laatam si pour dox bir rëcc lay ni ci ñaari tànk ña lil xaraami jëm ci aji araam bal li fi nekk istaxin na nga dimbandikoo bi ximaa ci ñoom ñaar xal maraami ci cakkuteef la ne tànk yi xéewal la gula yàlla xéewali kon nag na nga ci moytoo dox jëm ci lu araam na nga ci dimbandikoo tànk yi dox jëm ci lu yàlla gërëm kon im si doxal ilal masjid jëm ci jàkka ja laa ilaa dunubin waxuñu jëm ci ay bakkaar laasim na nga taxoo xibaadatan jaamu yàlla wama ak la nga xam ne yenoo bu dana wootu xan xaa walis jaamu yàlla boo yëkkatee say tànk na nga jëm ci jàkka ja mbaa ca tool ya mbaa leneen luy andi tuyaaba lépp luy xeetu jaamu yàlla rek ak lu na mel rek man ngaa yëkkati say tànk jëme ca waaye lu dul loolu rek moom bul ca jëm wala tam si yéen bul dox bi maa ci ñoom ñaar illaa lima ndara jëm ci loo xam ne rusduhoo jubam nga xat xulima xameef na ko xinal illaahi fa buur ba moom daal boo yëkkatee say tànk jóg bay dem moom na la wóor ni lii nga jëm lu yàlla gërëm la rek kalmashi ni ki dox lil islaahi ngir defar ab diggante aw li silati wala ngir jokk bokk wan wiha ak lu mel ne moom min salihaatil millati ci baax baaxi diine kon man nga jóg jëm ci jokki ak bokk wala bëgg a defaare diggante ñaar ñoo xam ne daa am dox seen diggante mbaa dem ca tool ya ak lépp loo xam ne rek lu yàlla gërëm la mën naa nekk nag waajib mën naa nekk man doob waaye bu dox mukk jëm ci lu ñu sib rawante na lu araam lu lënt sax bu dox jëm ca faslu ni ab dog la fil battani ci biir laa tudd xil bul dugal alxaraama aji araam fil battani ci biir wala maa du caagin loo xam ne fii si nekk na ci moom subhatun am lant balli fi nekk alxilla dee ci dugal lu dagan wila an ci toftaloo na nga moytoo def ci sa biir loo xam ne wóor na leen ne araam na mbaa sax loo xam ne da ngay ci sikki sàkka araam na ak araamut lu lënt mooy loo xam ne boo ko dee seet ci yoon day mel ne ci wet dafa dagan mel ne ci wet dafa aay lu mel noonu mooy lu lënt lépp lu looy def ci sa biir daal na lu wóor ne moom lu dagan la mooy fukkul na nga lekk xalaalan ajaleew in arata ndeem bëgg nga an tuteex nga topp allah yàlla war rasool ak yonante bi yaa haadal muftiyahu yow jili aji topp waaw nee na daal bu fekkee bëgg ngaa topp yàlla yonante bi topp gu sell fexeel bay lekk lu lew ndax lu mel na nga lekk rek moom ngay jëf boo lekkee lu lew lu sell faaw nga jëf jëf ju sell ju yàlla gërëm waaye nag boo lekkee lu araam faaw rek nga jëf lu araam boo lekkee lu lënt it faaw nga jëf lu lënt wa in wajattaxoo ndéem am nga ko falaa tu dayixan bul ko sànq fa man yu dayix ku sànq alxalaal aji leew duyixa kon sànkeef ko maanaam na ngay góorgóorlu ci am lu leew ndax ndegam sëñ laa jëfandikoo lu may lu lew kon war ngaa wut lu lew farata la boo ko amee ba noppi nag bul ko yàq ndax ndegam lu lew yombut boo ko amee kon nanga ko sàmm bu baax a baax bañ koo yàq atix toppal bi ci moom rabbaka sa boroom za infaqin mbir mu ngay boroomuk dundule minhu ci moom allësi la nga xam ne ihtada jub na bila nifaaxin ci lu dul ak naafeq lu leew la nga am na nga ko toppe yàlla di ko def ci loo xam ne lu jub la lu yàlla gërëm la man am ma koo xam ne jublu na rabbaxoo boroomam maxal xaraami ànd ak aji araam fala yafoos du tuufu ad dahara ci jenn jamono bil maraami ci càkkuteef la ñu ne bu dëgmalee sa boroom bëgg koo topp waaye da ngay jëfandikoo lu araam kon la nga bëgg doo ko am mukk ndax kuy jëfandikoo lu araam moom yàlla du ko nangul la muy defit du baax man xabada ku jaamu allah yàlla bil xaraami ci aji araam fala yakkoonu du nekk illa naadiman dara di aji reccu mun safilante aji suufe leen lu waaye xir-xir ci jaamu yàlla daal moom bu dee jëfandikoo lu araam du jëm fenn réccoog jëm fa suuf rek lay gis waxay sumaanil te foofi amee alxalaal aji leew faq tasir na nga gàttane lu mooy na nga yem alal kifaayati ca la doy rek yem ca wan tasir te nga dimbandikoo billaay ci yàlla mais lu lew la nga am boo cee jëfandiku na nga def lu yem képp rek te bañ a ëppal niki na nga moytoo àgg ci regg ndax loola la muy lew-lew lekk ca ba regg ca ci la musiba yu bare bari di bàyyi ko ni mu ko waxe woon ci yeneeni béréb ba tuddal la fa juróom-benn yi nga xam ne moom la regg di indi kon nag boo amee lu lew dee ci jëfandiku lu yem rek te bañ a àgg ci regg mooy rek boo jëfandikoo ba sàmm si wéru yaram dëggal ba mën a jaamu yàlla rek doy na faslu ndi ab dog la fil lisaani ci làmmiñ laasim na nga taqoo shukurallahi sant yàlla bil lisaani ci làmmiñ wa wa qaabil te nga jàkkaarloog al ihsaana rafetalu yàlla bil ihsaani ci rafetal yéena làmmiñ yàlla la ko xéewale kon na nga ko sant ci xéewal gim la xéewal nga am làmmiñ woo mën a waxe kon lu baax lim la defal faye ko ko lu baax te mooy sant ko ci dañ ko cee mooy adim saxalal tilaawatul kitaab yi jàng téere ba mukk siran mbir mu ngay aji baril bi ci moom salaatan ñaan dolli teral maxsalaamin ànd ak ñaan dolli wóolu kasuraa yoo xam ne bari nañ ñoom ñaar xalaa ajal dil xaalamiina ci gën jaamaag gi mindee fi ahmada te mooy moo di ahmad ahmada te moo di ahmad bi alihi ànd ak ñoñam maxasiha bi ànd ak saxaaba ya tuhmadan kon def na la sant daa wax ne boo bëggee sant yàlla ci sa làmmiñ da ngay fexe bay baril ci sa làmmiñ jàngal quraan ba tey di ca baril julli ci yonante bi foo toll di ko ñaanal salaatu wasalaamu mook ay mbokkam ak i saxaabaam wala tatturu kan te na nga bàyyi kullama lépp loo xam ne ay xant wóolu nga bi kaw ni ci nekkam nga alxaraama di aji araam aw dananta wala nga jortu ko na nga moytoo wax saw làmmiñ loo xam ne wóor na la ne lu araam la mbaa sax loo jort ne lu araam la lépp loo ciy wax daal na la wóor ne tuyaaba lay indi faslu li ab dog la fi farji ci pay pay mooy sawukaay laa taqrab bul jege ab sinaa njaaloo wala lu muqaddamaati du caagéen yéen ñu jiital njëkk njaaloo li wàcc ci baax ngir jëmi aji des xóoru xoo kook jigéen ñi ajanaam ña muhazzamaat ñu ñu màggal lañu na nga moytu njaaloo ak ya koy jiitu ni ki laalante ci yaram fóonante yépp daal na nga ko moytoo def ak koo xam ne du koy séel ci yoon na nga bàyyi kon njaaloog lépp lu ko nuru te yàlla rek tax yàlla ma nga xam ne am na jigéen ñu rafet ñu mu denc ci àjjana ngir rek ñay topp ndigal ak bàyyi tere waji tamit na nga moytu alxultata jaxasooga wal mubasharat ak jonjooga li ajnabi yéti ñeel jaamur bu jigéen maxal munadarati ànd ak xoolante ga jaamur bu jigéen mooy koo xam ne araamulaa takk araamula nga séy ak moom moo xam mi ngi séy moo xam séyut ku mel noonu nag na nga moytoo jaxasoog moom mbaa jonjoog moom ci yaram mbaa xoolanteeg moom xool boo xam ne xoolu bànneexu la sañ ngaa xool kanamam nag bu fekkee ne ragaloo ci fitna te jubloo ci xool nga itam bànneex jooju wax moo gën a wóor ci yoonu Malik inal ajaani ba naka jaambur ya la dal awtaani fa dal ya muy fa réew ya waxa riha ak yu dul ñoom xabaa ilu seytaani ñooy fiiri seytaane nee na jigéen joo xam ne jaambur la ci yow daal moom dee ko moytu bu baax a baax ndax fiir la gu seytaane samp bëgg la caara bu ci béréb bu mën doon rek da ko faa samp ngir bëgg la faara bu na nga moytu nag mu jàppale ca ijxal defal tasawujan takk soxna makaana xurbin ci palaasub jege li aji nabi yeti ñeel jaambur bu jigéen tafus kon nga tuufu bil xur bi ci jege neen loolu na la jegee ab jaambur bu jigéen far ko takke soxna mu lew la nga jege ko am ca tuyaaba naa i na nga sorenteeg al ajaani ba jaambur yu jigéen ya ruum na nga sàkku ak tasawuja takk soxna aw jàmmilan baa nga rafetal sabaraka sa muñ tukk fa kon fegaleef la alxiwaja ak dëng sorenteel ak jigéen ñi nga xam ne jaambur lañ ci yow fexee la takk soxna baa bu fekkee mënoo ko nga muñ ba yàlla defal la ko ba yàlla defal la tawfiix ci mën a am soxna faslun li ab dog la fil udunay nit ñaari nopp ña laa tastami bul déglu bil udni ca nopp ba lil manaahi jëm ca tere ya xaf ragalal intiqaama amirin fayan toog aji digle wanaahin ak aji tere sab nopp na nga ci moytoo déglu lu yàlla aaye ku ko ci déglu na nga ragal yàlla fayantoo ci yow yàlla mi sañ a diglee ko aaye te mooy diglee ko aaye ragal ak fayantoom ci yow boo dégloo loo warta déglu xadd xuli xat bindeef na ko moom nopp bi lakka ñeel la li koy tastamixa ngir nga dégloo bi xaa ci moom kalaamallaahi wax yàlla fal tastamixan kon na nga ko ci déglu dañ laa bindal nopp bi mooy dañ laa sàkkal nopp bi ngir nga déglu ci lu baax mel na nga déglu ci wax yàlla ñu muy alquran kon in kunta dem nekk nga musxiyan di aji déglu gisoo in ñel lu bon bii maaj ñoom ñaar saara kon mujj naa yi mu ko sa xéewal xasaaban di mbugal faf xaman na nga dégg nopp yi yàlla la ko sàkkal muy xéewal gu rëy rëy boo ko ñàkkoon rek mën mënatu laa dégg daal xam ne xéewal gu rëy la kon nag nee na boo ci dee déglu lu bon xéewal la woon waaye soppi ko na far mbugal wala tazunna te bul jorot ne anna ismal xiibati naka bakaaru jëw ba yux tas su def na ko jagleel bil qaayili ci ay wax ja fil musibati ca musiba ma nee na bul defee nag ne ka jëw rek mooy amee bakkaar bi waaye ka ko déglu amu ca bakkaar ah kay ka nga xam ne moo koy déglu kay da daal di am bakkaar ne ka wax jëw ba wax ju araam daal na nga ko moytoo déglu moo xam jëw la moo xam rambaaj la moo xam leneen la ndax boo ko dégloo daal yem ak kooka ca bakkaar ba mooy is ngir àllsi ka nga xam ne xad yastamihu dana déglu alxiba te jëw ba musharikul qaayili aji bokkaale la ak aji wax ja fii maa ci la nga xam ne yasmaaw dana ko dégg ndax nee na booy déglu jëw ba yaa ko koy wax yéen a yem ca bakkaar ba nga xam ne tey boo nekkoon ci oto mbaa béréb boo xam ne mën laa génn dem te koo koy wax lu aay faaw nga boole yaar mu naqari la ci sa xol te itam boo ko mënee aaye nga aaye ko boole ca soo ko mënte aaye nag naa naqari sa xol ba yàlla xam ne yow mii moom lii neexu la te da ngaa xamul nooy def ba tàggoog moom waaye kon doo ko déglu ku nekkal das ci maaxin di boroomuk déglu li tilaawati ñeel jàngal quran wa maag la nga xam ne waalaa méngoonte naag ak tilaawati jàngal quran tulaaxi kon nga taseeg al aqwama yoon wa gën a jub nee na fexeel bay déglu ci say nopp al quran ak lépp lu mel ne moom ni ki tudd yàlla ak ay waaraateeg lépp lu am njariñ rek déggu ci déglu wala takun te bul nekk mustamihan di aji déglu li xëyri ma ñeel lu dul la nga xam ne yàqoo dana womat lakk jëme ci yow amanan kóolute wa karaman ak tedd nga lépp loo xam ne daal seetlu nga ne boo ko dégloo du tax nga amee ca ak mucc ak teraanga moytu koo déglu maanaam del déglu lu baax loo xam ne boo ko dégloo amee ci mucc ak teraanga faslun li ab dog la fi la ay nay ni ci ñaari bët laa tanzur bul xool bil xay ni ci bët ba li shay'in jëm ci dara xaruma loolu araam na bal li fi nekk xuddaha nanga ko damm xan walis lu araam la takun kon nga nekk muxtaraman di ko ñu ormaal nee na say bët na nga ci moytoo xool loo warta xool na nga téye say bët bu baax a baax bañ cee xool dara lu araama xool mbaa lu ñu siba xool tax xadd manaxa tere woon na ar rasul yonante bi salla yàlla na dool tedd nga allahu yàlla xalihi ci moom fil aali ci ñoñña waman ak képp koo xam ni waalaahu méngoonte naag moom tere woon na min nazratin ci xool ila saxifati axin jëm ci kayitu am mbokk nga ko fi de jëm ci téereb am mbokk bi xëyri isnihi ci lu dul ndigalam iji tanifu nanga ko moytu nang mooy nanga ko teet yaa ax yow sama mbokk yonante bi aaye woon na xool kayitu jaambur wala bu dee téere itam noonu la te amoo ci ndigalam waaye loolu nag mooy bu dee téere boo xam ne moom xëy na secret nga ca boo xam ne xëy na bëggul nga gis ko waaye bu dee téere bu mu teg ne boo xam ne bañu ko jël jàng moom mën ngaa wax ko jël jàng waaye nag bu dee lu mel ne leetar mbaa yeneen kayit di def ay dossier ay secret yooyu mbaa téere boo xam ne def na ca lu mu bëggul kenn gis ko lu mel noonu war laa jekki-jekki daal koy xool bu ci amul ndigal rek dana araam nga jekki-jekki fab ko di ko xool laa tantur bul xool addahara ci jenn jamono limaalil muslimi jëm ci alali jullit nazarata iyita in xoolub lor fa xudda na nga damm say bët taslam kon nga mucc nee na bul xool mukk alali jullit xool bu ko yàq ne ne boo xamee ci sa bopp ne yàlla la bindee bët bu aay ba boo xoolee dara mu sikk kon na ngay moytoo xool yëfi jaambur ba tey nag bul xool yëfi jaambur xoolub añaane ko mbaalu koy nuru xadd xuli xat bindeef na ko moom bët ba lakka ñel la li koy tax tadiya ngir nga gindikoo bi xaa ci moom fii zulmatin ci ak lëndëm fala tasta adiyen kon bul ci jalkati nee na bët yi yàlla la ko sàkkal ndax nga mën cee jariñu boo nekkee ci lëndëm mën caa xoole ba xam nooy def kon na nga ci moytoo xëtt yoon di ci def lu jaaduwut wasaan na nga dimbandikoo bi xaa ci bët ba fil xawaa iji ci aajo ya fala tanzur bul xoole bi xaa ci bët ba nazarata xaasin xoolub aji mooy nga wala ko sàggan na bët bi na nga ciy dimbandikoo faj soxla yi nga xam ne bët baax na ca maanaam bul doon waajoo xam ne daal day sànni bëtam fu ko neex rek du seet ba xam lee lu mu war a xool la wala waru koo xool déedéet wala ëpp naa def wantul xoolal bi xaa ci bët ba ilaa xajaa ibil xadiri jëm ci kiimtaani yàlla mi aji atan ka kulli shay niki mépp mbir jadiru mi ajeeyoo bit tafakkuri ci xalaat na nga ciy xool kiimtaani yàlla yi di ci xalaat ak waaru ak sant yàlla mi la may nga am bët yoo mën a xoole kiimtaanam yi ba di ca doliku xam ak waaru faslu li ab dog la fii dikkiri adaayil insaani ci tudd nooni nit an nafsu bakkan wa duniya ak adduna wa shaytaan ak seytaane laa in ku di kuñ rabbu mahal hawa ànd ak bànneex xaayiqatun aji gàllankoore lañ anil muhiini walis yàlla mi aji dimbalee nee na ñeent noonu yi mooy noonu nit te moo bëgg a dox digganteem ak boroomam bi bakkanu boppam bi ak saytaane ak àdduna ak bànneexam bànneex nag mooy sopp ak bëgg lu amul njariñ loo xam ne bakkan bëgg na ko waaye amalu ko njariñ loolu mooy alhawa jihaaduha seen jihaad nag ñoom ñeent yooyu huwa moom al jihaadu mooy jihaad ja al akbaru ji gën a rëy kama ataana nag mënu dikkee alxabaru xabaar ba bi ci loolu an xum jëlee ci ñoom mu ne nag jihaat ak ñeent noonu yi mooy jihaat ji gën a màgg fi toll nii moo gën a rëy moo gën a màgg jihaat ak jees yi ndax jihaat ak jees yi moom du yàgg ndax benn rek balaa yàgg nga rey yéefar ba mbaa yéefar ba rey la te it lu ci mën doon yow jullit yow nga ñaan nga ci amee ndax bu la yéefar ba reyee sa pay nekk àjjana yow nag boo gañee yéefar ba daal di boole yaar koomum àdduna ak àjjanay ëlëk te jihaad ji nag moom mën naa yàgg lool ndax bu sag dund yàggee na sag dund yàggee rek noonu la jihaad ji yàggee te it lay baax rek mooy yow nga gañe noon yii waaye bu la noon yi gañee rek boo tuut dal di bëgg dem ca kërub safaan ba bu la yërmande yàlla dabaatalut fal tas dund ngay tëj alkul la képp ci ñoom wa kasir te nga damate asilaax nga naay la don sam kon def na la musal wa tukkaram te defi la teral wa tu dafar te defi la tuuf bi salaahin ci ak yiw mooy baaxu mbir nee na ñeent noonu ñi kenn ku ci ne am na kaso boo ko war a tëj am na itam ngànnaay lu mu yore loo xam ne war ngaa gaaw dammate ko bala mu la koo songe ñoom ñëpp nag boo gaawee tëj leen kaso dammate seeni ngànnaay kon na nga mucc da nga am teraanga danga da nga am baaxu mbir mooy da nga am yëweenu mbir fa nafsu bakkan ba in xadat ndem bëgg naa jalgati xale ka ci sa kaw